te xibaar yi bind mais comme yéen yéen a gën a graaw euh, pas graaw gaaw maa ngi jé jéggaloo pas graaw mm, mm, mm. yéen a gën a gaaw euh, presse écrite bi presse écrite bi bind na ko mais yéen yéen a ko njëkk a bind nekk docteur bi nangam la wax à l'audience mu génn weddi leen yéen ñëpp ne li ngeen bind du noonu aussi bien presse en ligne que presse écrite moom waxul loolu nangam sangam boobu tamit cas la ci biir euh, cas bi ñu bëggoon euh, un nga leeral ñu loolu nu mu mën demee et on a vu même d'ailleurs nga tweeté di apporter ton soutien à ton reporter sur place ouais. a bien di que docteur bi moo ne mais génn ci biti naan noo moom donc euh, on veut très rapidement rek revenir ci épisode boobu. mais mais xam nga der avant ñu yëkkati jotaay bi à travers mon reporter. Mhm. dama laaxaale journaliste yi fa nekkoon yëpp. Euh, parce que ñi fa nekkoon ñëpp ñëpp ñëpp. dañuy wax même chose. Hmm. oui. et dégg déggante wuñu nekkul loo xam ne dañ ko déggoo wala dañu ko kii daal cest dañ ko dégg reporté ko noonu et man avant même sama rédaction di bind kii bi gis nag ci beneen sit ñun ñoo ko ci deuxième tête ñi ko bind lañ bokk après mu law ci yeneen site yi ci des donc avant même journaux yi di ci wax site yi wax nañ ci mm-hmm. tas na donc ñi ci wax <laughs> duñ ma ne dañ ko créer wala peut-être <laughs> dañ ko dégg juge bi wala ci kii bi non mm-hmm. moo wax parce que c'est lui qui était à la barre donc il avait la parole mm-hmm. moo wax nit ñu dégg reporter c'est ça. Mmh. et c'est ça qui a été traité donc quand lui il revient pour dire ko noo man kat waxuma woon lii ben là ça pose problème. Mmh. ça problème et donc euh, dafay mel ni ku nar a jeter le discrédit. Mm-hmm. sur les journalistes qui étaient là-bas. Mm-hmm. or loolu mënta nekk et mënul loo xam nekk loo xam ne lu ñu mën a nangu la parce que ña fa nekkoon. Mm-hmm. Euh, mënuñu juumandoo mënuñu juumandoo ah parce que bari nañu trop mhm. te mënuñu juumandoo bu doon benn la wala ñaar sax ñu mën a wax mais ñëpp fa nekkoon bëri nañu trop et teg ci vraiment aussi euh, da ngay comprendre être moom que xam nga ma ñu maa wax fii nii léegi nii à la barre bu dee yow avocat yi sosoon nañ la tribunal bi aussi ñëw ak ay question boo boo dëgërul tuuti rek da nga jànnaxee boo dëgëru di danga nga xëy na ndax dafaalu question yi moo ko sonal bu jànnaxee wax lu mu bëggul woon wax mais en tout cas li mu wax mhm. moom la journaliste yi bind yokkuñu wàññiwuñu et mhm. vraiment donc bu defee précision précision pour moom man dafa ma fa waroon wax ne moom man maa juum mhm. ndaxte kat lii ak lii ak lii kat laa bëggoon a wax waaw kay laa bëggoon a wax waaye du nii waaye bu mu nee dañoo travestir maanaam ay propos wala mu ne journaliste dañ koy jéem a dugal di quoi que ce soit non du tout c'est c'est pas c'est pas ça du c'est du tout moo tax man euh, bi may ay 3 heures du matin ma gis loolu ma ne non ça c'est pas possible et j'ai vu le tweet de mon reporter et j'ai encore aussi ci groupe bi mhm. journaliste fa nekkoon bind ne carrément waaye lii la wax am na sax ñoo xam ne dañoo transcrire ses propos parce que mhm. en fait les prises de note xam nga waa ji biy wax automatiquement da ngay gars yi def prise de note léegi seen téléphone la ñuy def prise de note bu ñu paree bu ñu yónnee ci rédaction ba ñooñu ñooy jekk-jekkalaat corriger kii day dugal mais prise de note bi c'est c'est automatique cest à yow boo booy wax gars yi ñi ngi jël note seen téléphone donc yow booy daaneel rek affaire bi yegg na. mi ngi yegg waaye. te bu yeggee automatiquement dañuy corriger jekk-jekkal dugal amul sax li ñuy amul sax demal demal ma ñëw. léegi nag kon nag instantanéité boobu noonu jum mënu fa am. Mm-hmm. alors euh, Lisa très rapidement rek Ayoba Faye a bien compris mooy ce reporter que le docteur Alfousseyni Gaye a dit à la barre sur un micro que les prélèvements faits le 2 février sur le bon je change le terme l'appareil génital donc de Adji Sarr parce que bële mën na choquer je change moi-même ce qu'il a écrit ont été envoyés au labo mais le reste c'est ça et que les résultats confirment la présence de sperme. J'étais là et j'ai entendu, point final. Et toi, tu as apporté ton soutien à ton reporter qui a rapporté ce que nous venons de, de dire. Et Charles, euh, voilà, Bouba, Charles, toujours dans cette même veine, comment, Bouba, oui, Bouba. comment, comment